assalamu alaikum gay maa ngi leen di nuyu di len dalal ak jàmm ci sene Sport 220 The Best Sport Channel ki nga xamanteni moy Sadio Mané l'international sénégalais gannaaw match bi nga xamanteni Liverpool amon nañu ko sen digënté ak Newcastle United ni ki démb te ñu match ni doon nag partout mu nekkon match bi nga xamanteni nak nag na fant Liverpool yi xañ na amuñ ci won contenté trop ci fatali nak Liverpool ñoo jitu won ba ci dernière minute Newcastle daldi égaliser bi match boobu la jeexee nag am kenn ci fans Liverpool yi koo xamante ni dafa daal di bind ci Twitter ki nga xamante ni mooy Allan Saint-Maximin nekk joueur Newcastle United moom nag ku mën a football la. daal di koy bind ne ko ndax yow euh, Saint-Maximin mënoo ñëw Liverpool su ko defee Sadio Mané daal di dem Newcastle maanaam fans bi mu xëy na mu ngi xeeblu Sadio Mané di wane ne daal xëy na Allan Saint-Maximin moo gën a mérité jamono yi pour jouer foofu la ci Liverpool Sadio Mané daal li mu mérité jamono yi mooy jouer fële ci Newcastle United loolu mën a jàngatee message bi. waaye nag ki nga xamante ni mooy Alassane Maxime dafa daal di tontu fans bi daal di défendre ki nga xamante ni mooy Sadio Mané mu nekk nag kàddu yoo xamante ni ñu bëri la bett te muy wane rek kii di Alassane Maxime nekk na koo xamante ni ku respect ki nga xamante ni mooy Sadio la te it am na fu bu ñu jàngatee message bi nag ki nga xamante ni mooy fans Liverpool bi lii la ko bind ci ci anglais la nag daf ko ne ko can you come to Liverpool and Mané goes mu ne ko ndax yow Alain Saint-Maximin moom la doon waxal ndax mënoo ñëw Liverpool su ko defee Sadio Mané dal di dem ci beneen côté bi beneen côté bi mooy Newcastle United waaye nag ki nga xamante ne mooy Alain Saint-Maximin dal di tontu ki nga xamante ne mooy fans boobule lii la ko tontu dafa ne ko I know you think it's a nice message to me but I don't like this be respectful to him please you are ungrateful he did and he's doing a lot for Liverpool there is still a long way before I could reach his level loolu la ko ki nga xamante ne mooy Alassane Maxime dal di tontu moom fans bi dafa ne ko xam naa ne sax yaa ngi foog ne message bu rafet wala bu message li nga bind nekk na message bu ma neex waaye man nag bëgguma yii nag respectel ki nga xamante ne mooy Sadio Mané maa ngi lay ñaan nga respecté ko yow sax bu ñuy xool yow ku gorea di nga gore woo ndax kat Sadio defal na lu nekk Liverpool te it ba tey muy continuer di def lu bari ngir Liverpool te it am na yoon bu gudd a gudd bu sori bi nga xamante ni dox na sama diggante ak fi nga xamante ni foofu la nekk ci jamono yi maanaam level bi mu nekk dese naa yoon bu sori ngir mën a àgg fi nga xamante ni Sadio Mané foofu la toll ci jamono yi lii la ko ki nga xamante ne mooy Alassane Maximin daal di bind moom fans bi kon loolu bu ñuy xool moom euh, ki nga xamante mooy San maxime moom daal dinay xas ki nga xamante ne mooy fans Liverpool boobule wan na ko ne ko yow gore woo te it maanaam fàtte nga lépp loo xamante ni Sadio Mané defal na leen ko te liggéey bu am solo bi nga xamante ne Sadio Mané mu ngi koy def ci jamono yi nekku leen di ko gis te it am na foo xamante ne Sadio mu ngi fa te it sori na trop balaa may àgg foofule moom ki nga xamante ne mooy Alan San Maximin lii la tontu fans bu fans Liverpool boobu la di défendre ki nga xamante ni mooy Sadio Mané. buñ jógee ci loolu nag dañuy wax ci Kylian Mbappé moom gannaaw match bi nga xamante ni Paris Saint-Germain amoon nañu ko seen diggante ak Metz moom nag jeexalul match bi dañ ko dal di génnee ndax dafa am gaañu gaañu waaye nag euh, kii di xibaar yi wéral nañu ne kii di coach bi moom euh, donte ne joxewul update yu leer wanewul ne carrément ndax gaañu gaañu bi garaan wala garaawul waaye dafa wax ne daal am na yaakaar ci ne xëy na du nekk blessure bi nga xamante ni bu doy la. ci fàttali nag ñetti fan wala ñaari fan ak ay waxtu moo des suñuy diggante ak match boobu nga xamante ni euh, Paris Saint-Germain war nañu ko am seen diggante ak Manchester City te mu ñeel lii di Ligue des Champions bi. kii di Kylian Mbappé dal di génn ci jongante googu la ndax gaañu ndax garaaw na wala garaawul xamaguñ ci dara waaye coach bi daal nee na ci yaakaaram xaj na du nekk li nga xamante lu doy waar la trop ki nga xamante ni nag wala ñii di waa Burkina Faso ñoom nag matt bi ñu war a am seen diggante ak Algérie te mu ñeel éliminatoire coupe du monde 2022 yi kayiti xibaar yi wéral nañu ne ci Sénégal lañ koy footballé ndax ñoom waa Burkina dañoo euh, suspendre seen boobu boobule lii nag waral na ba seen match boobu nga xamante ne war nañu ko am seen diggante ak Algérie te ñu waroon ko jouer foofu la ca Burkina dinañu ko jouer fi nga xamante ne mooy ci Sénégal ci stade Lat Dior bu Thiès loolu nag mu ngi war a nekk ci mois de juin bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal